alors tey dañ li ñu indi fii bu ñu wax mu leer ci kanam ñëpp gis nañ ni sunu xarit suñu nawle muy gii Marius Sagna mi ñuy jàpp ci fan yi ñu nekk fële ca Kolda mu doon dimbali ay nit yu am problème ñu jàpp ko ci biir jàpp boobu ëlbatiku naan dafa am poste bu mu defoon il y trois jours ñetti fan ci ginnaaw ñun ñu bëgg xamal askan bi ni du woon poste boobu mais li muy dem di dimbali ñi am problème ñi muy dem dimbali Sénégal yi nga xam te ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe looloo indi jàpp bi moo tax ñun mbootaay yi nii muy juróom-ñett organisation muy collectif kuréel collectif ñoo laat ñu tudd dëgg de valeurs bi nga xam ne Abdou Karim Gueye moo leen jiit moo leen taxaw fi FRAPP France dégage urgence panafricaniste LCS Africa First Ato dal di dëkk kat dafa jaadu ñu taxaw comme nuñ taxawee woon le 17 bi passé sunu xarit camarade bi nga xam te ne maris dañ ko bëgg ci lu amul lenn parce que constaté nañ ñu fan yele ci ñi fi toog muy Abdou muy Abdou Karim Gueye muy Pape Abdoulaye Touré muy moom kii Mari Sagna ku si nekk am nga ay jafe-jafe yoo xamante ne Sénégal yëpp dañ cee teg bët nga dugal ñu dugal ay plainte yu mujjul fenn mais ñu gis ni mu fekkente ne activistes yi ñoom ñoo bind lu ndaw wala ñoom lañ plainte procureur day daal di jug rek auto-saisine donc lolu tax ñun ñu jup ñu ne ah dafa jaadu ñu neuf ñu juroom ñet juroom ñet organisation yi ñu wo askan bi yëpp pour ñu ñëw taxaw suñu waji muy kan muy Guy Marius tuba suba fan ci tribunal bi pour que autorité yi nga xamantene ñoko bëgg a xamni Guy Marius buñ ko arrêté dinañ gis ay euh, ay série de manifestation yu nar am fi ci dëkk bi mais également ci diaspora bi te ci kaw loolu ñu leen xamal ni dañoo dugal ab lettre ab ab lettre d'information pour yëgal pour yëgal euh, préfet bi que ni ñu ngi fekk juróom-ñeenti point yoo xamante ne yenn ku mu am ndey ku mu amul ndey yoon boo xamante ne day dal si ñi sénégalais yi mais bàyyi sénégalais yéen li nga xamante ne suñuy ak ak yelleef yi nekk di salfaañe mooy ci bu ñu demee bu ñu waree bu ñu waree manifester ñu ñëw buntu xatan ñu tere ñu ko te loolu charte ndey réew moo ñu ko may. donc yooyu yëpp ba mu dajaloo ñuy woo askan bi yëpp ñi nga xamante ne képp ki nga xamante ne Guy Marius Sagna mës na laa xeexal parce que moom loolu moo ko indil jafe-jafe bii moo am mu nekkee nga ñëw taxawu ko ñuy wax également kilifa diine yi ñu wax ci lii nii parce que ñun bu ñu nekkee bu ñu jugee ay yeneen am. ñoom ñoo ñu naan bàyyi leen ginnaaw ñoom ñoo ñu njaboot également nañu wax aussi li ñu nekk di ñu def activité ñoom ñu jug si wax ci depuis léegi. sinon lii ñëw lii am parce que ñun lu ñu wax dañ koy def. ci weekend bii lañ leen may pour ñu libérer suñu camarade lu ko mooy la semaine prochaine daanaka sax xëy na introduire nañu pour le vendredi prochain. mais avant boobu lu ne mën na xew. dañuy laaj maanaam ndax àdduna bi mu sosoo ba léegi même la profit amuñu woon naa ko def. te kenn du ko wax prophète yi sax amuñu ko woon waxatuma la ay gendarme quoi nga xam ni général Moussa Fall ay moom gendarme ay gendarme ni moom ñoo bind ay téere wax ni du nitu dara loolu du ñu du suñuy wax la police aussi ñoom war nañ ñu gis ko ñun nous sommes des témoins oculaires ñu gis ma Serigne Faye mi nga xam ne retraité na ba léegi mi ngi police mi ngi euh, camp bi Diassé di def sale boulot Macky Sall nekk xaritu Antoine Diop du tey la xamal Sénégalais yi ne leen dafa jàng te ku ne xam nga ay monstres du tey la wax ni Sénégal dëkk la boo xamante ni am na démocratie wala amul démocratie xam ngeen ko kon amul lenn lu ñuy jàngal kenn bu ñu fi toogee di wax ne Bougazeli di répété Bougazeli Bougazeli Bougazeli koo xamante ni ay billets noirs la yoroon taxaw jiñ gendarme gendarme gendarmerie yi nee na la gendarmerie c'est des corrompus nee na ñoom dañ ko proposé nañ ko se proposé nañ ko mu jox leen cinquante million mu bañ loolu moom moo ko wax ay vidéo la du suñuy wax te dara fekk ko si Guy Marius Sagna dem si àll bi di taxaw teewal ay sénégalais comme ni ñu koy defee saa su Ils ne sont pas Ils ne sont parti ils de ils sont pas dignes de leur tenue ñoom ñoo jaay Ils ngor ñoom politique bu police Ils fayda ba institution bu a Ils ne ñu de ba yàqu ci politique ak pas parparloo ak intérêt personnel gendarmerie général généraux gendarmerie di politique di di di Ils ndax Ils intérêt crypto personnel ba Ils ne kenn du ko fi waxee Sénégal état de droit te constitution Sénégal moo ñu tënk may ñu ñun ñu am kàddu wax ànduñu si luñ d' accord ñu ne d' accord ñu loolu mooy démocratie loolu mooy république donc kon dañuy wax ñoom xamal leen ne leen Guy Sagna du moom la ñuy bàyyi ñu koy patam patamee te Sénégalais yi laay waxal nag c' est très important bàyyi xel suñu moytuwul nañu am gàcce ci kanam Guy Sagna suñu moytuwul Guy Sagna dinañ ko amee ak parce que man mënu ma comprendre amul kenn du man du kenn amul benn activiste wala politicien bu def li Guy Sagna li muy def kenn defu ko si kenn defu ko nañ waxante dëgg quoi Limite daj ndax Sénégal dafa am jabar ami doom kenn ko amul fond de caisse amul dara muy rayante ñuy ñafe muy ñafe sa su ñu téyé ko japp ko ko te Sénégal rek motax kenn ko ci ko ci fayda donc ñun ñu jël suñu ci ko ne ko ñun ay gor lañ tamit war ñu mu ñu quoi tax manifestation vendredi bi manifestation bo ñun xam nañ ni Dakar comme politique amul personnalité ñoom ñëpp yàq nañ institution yi benn institution amatul benn dignité amatul benn respect ñun ñun le peuple sénégalais wan leen ni ñun kenn duñu teree jël suñu ak suñu yelleef moo tax ajuma biir yow bi si topp insha allahu rabbi dañuy woote manifestation dugal nañ déclaration bi déclaration baa ngi nii ay bis yu bare bari boobu ba léegi ñu ngi jug di def ay déclaration teg ko si yoon ni ko constitution Sénégal diglee ne am ngeen droit yéen droit constitutionnel la yoon may na leen boo leen bëggee génn taxaw ne d'accord leen ci lenn ngeen bind ak laajte maanaam yëgal autorité wax leen ne la man sax da auto du ma autorité man imam yooyu sama autorité compétente man ñoom amuñu ful amuñu fayda mais comme noonu lañ koy waxee on est obligé autorité compétente wax leen ne leen ñun am nañ droit manifester daa def déclaration bii parce que boo ko toppee muy fukkeelu yoon yoon bu ñu yëgal préfet de Dakar ni ko dañoo bëgg taxaw ñaxtu ci dund lu cher bi dañu bëgg taxaw ñaxtu ci policiers yi tuuraate dañu bëgg taxaw nangam dañu bëgg taxaw ci dëkk bi ni muy doxee en tant que citoyen préfet préfet da koy bañ carrément catégorique duñu nangul dara léegi nag dafa jot nag sénégalais yi conscient xam lan moo la ñu tax a jóg kan moo la ñu tax a jóg ak lan moo ñu boole ndax li ñu boole Sénégal la te jot na Sénégalais yi xam ko moo tax may wax ni suba incha allahu rabbi Guy Marius taxaw ci kanamu juge bi justice bi nag Macky Sall yàq na ko Macky Sall yàq na gendarmerie Macky Sall yàq na police Macky Sall yàq na lépp dëkk baa ngi mel ni lu kenn xam li fi des ku sub tuut muy ak ngor na nekk si ñun le peuple sénégalais ak jeunesse bi nga xam ne dañu conscient conscient ci taxaw pour dimbali Sénégal loolu motax ñu donc on fait appel à toute la population sénégalaise rawatina kilifa diine yi Macky Sall respecté wu kenn respecté wu institutions. institution dañ violer, violer violer violé kon moom mooy violer bu mag ndax na constitution violer na lu ne donc kon li ma bëgg ñun léral ko xamal ko sénégalais moy mooy Guy buñ ko libéré wul fi ba week bi jall vendredi prochain ñu accepter manifestation pour ñu ñàkk ko accepté def nañ déclaration suñu devoir def nañ ko dañuy waat manifester pour sa libération dañuy manifester pour ñu may ñu manifester jox ñu suñu droit suñu ak suñu yelef donc loolu moy cadre bi ma wax mooy delluwaat rek ci souligner waat ni nañ ko xam gendarmerie et la police dañu yaq deru police yaq deru institution ñu mel ne général Moussa Fall ak ay moy autorité yi nga xam ñoo nekk ci police bi nekk ci gendarmerie bi au fait wuñ dara loolu dañ leen ko wax ñu xam ko te Guy Marius Sagna même propos yi mu wax loolu la répéter wax waat gendarmerie déshonneur la est parti ñun ñoo ko wax on répète les mêmes propos nañ ñëw jàpp ñun ñëpp te on va manifester pour Guy Marius Sagna on va manifester pour libérer ce peuple là